Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn leen waa Ndakaaru tàbbi ngeen jinaani ci jumaa jumaa ji di Masaalikul Jinaan yéen waa Ndakaaru tabbi ngeen jinaane ci jumaa ji masjid Masaalikul Jinaan jinaane ci jumaa ju masjid Masaalikul Jinaan jumaa ju majjuray ji fa Ndakaaru kenn mas a mu daar leen waa Ndakaaru tabbi ngeen jinaani ci jumaa ju mag ji di Masaalikul salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ngi fii ci Massalikul Jinaan comme niñ ko baaxoo ànd ak uh, mbokk taalibe yi depuis bi nga xamee ne uh, tàmbalik uh, liggéeyu ibbi jumaa yi Massalikul Jinaan yaakaar naa mbokk taalibe yi jóge nañ fépp ci àddina bi ñëw teewee ko yaakaar naa jullit ñi mbokk yi ñëpp ñoo ngi ñëw ma am soxna suma jàkkaar lool muy taalibe Serigne Touba ma di ko laaj lan mooy sa teewaay fii ci tey dañoo ñëw fii Massalikul ngir euh, màggal bés bi parce que sëñ Touba def na loo xam ne nii si àdduna amuñu fayam comme taalibe ab taalibe lañ ñun ñëpp ay taalibe lañ ñëw tey nag si màggal gi pour. yow soxna si fan nga dëkk. man euh, HLM. HLM nga dëkk waa soxna yi nga xam ne ñoo dëkk Dakar dëkk HLM tout près ak jumaa ji jumaa ji lan la leen indil changement ci seen digganteeg sëriñ dina tax ñu gën a jege sëriñ bi. dina tax ñu gën a jege sëriñ bi parce que moom lii fu ko am sa wetu kër yaakaar naa dalay tax mouridisme daal ñu gën see gën see taxaw daal. jërëjëf jërëjëf kon mouridisme ñu gën cee taxaw yaakaar naa cadeau bu rëy rëy rëy ci yéen waa HLM. mbaa jàmm yaa ngi jàkkaarloo ak Production mooy site boo xam ne day liggéey ci wàllu yaatal jàngaleem sëriñ bi ñu gis la fii ci jumaa ji nga yor sa puus lan mooy sa teewaay bi. waaw waaw sant yàlla bu baax baax julli séent bi. waaw du sant euh, Seexul Xadim mu waral bis bi tey ñëw fi tey waaw soo ko ñu ñëw fi nag lépp nag ngir liggéeyal sañ Touba rek waaw ñu am loo xamante ne ñun ñëpp waxuma sax murid sax mais jullit yi ñëpp ñoo si war a kontaan wax dëgg yàlla waaw kon bokk. mbokk mi yaa ngi yaa ngi dëkk fan yow. man maa ngi yaa ngi tudd nan. man almaami laa tudd. almaami almaami Diop. almaami Diop waaw. lan mooy taxawaayu waa dakaar ci liggéey bu rëy bii. waaw kay sant yàlla bu wér sax sant yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaw rek sant rek daal. ci wàllu mouridisme lan nga lan nga am comme xalaat yaakaar ne liggéey bi ñu liggéeyal Serigne Touba fii ci dëkk bi dina ko indi changement ci murid yi fii ci Dakar. waaw loolu ça dépend si jikko yi rek waaw si jikko rek la waaw ça dépend rek waaw jumaa ji mun na fi ñëw jikko yi itam su changé wut du njëriñ dara rek. waaw moom daal waaw na jikko yi na na. de. waaw saf na trop saf na ko moom mais na jikko yi naas rek. Ah. waaw jikko yi moom jaajëf Aliou Badara ah, jëwri sëñ Souhaïbou Souhaïbou Dieng Touba waaw waaw maa ngi lay ziare bu baax baax sëñ Souhaïbou na nga def yaa ngi jóge Touba ba fii ñëw fésal sa mbégte ci sëriñ Touba sëriñ Touba daa baatare fépp mhm. daa baatare fépp mhm. ndax daanañu wax sax di dinañ wax ay xibaar ak mhm. diñu wax ay masaalikook diñu wax ay téere mais bii moom daa yeewul boppam dox ak tànkam dugg Ndakaaru sëñ Touba daa baatare daa dugg Ndakaaru 2019 bi xoolal. Mhm. actualité ba mu commencé ba tey sëñ Bamba. am ta sin la de 1441 am ta ren Bamba waa lii lii loo noo noo noo. ni may xalaate kay mooy tarixe yëpp day ñëw jëblu sëñ Touba. jërëjëf jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulah ñoo ngi jàkkaarloog ak euh, Serigne Abdou Khadir Mbacke muy kenn ci njabootu Serigne Touba gi. ñu daje ak moom fii ci Masalikul Jinaan injaazaat yi nga xam ne yoonu murit moo ko moo ko moo ko moo ko réalisé def ko fii ci xolu Ndakaaru ana ban taxaw seetlu nga ci am ndamal l'islam lii ana yow en tant que chef religieux buñ la dee laaj noo ci euh, man de ni ma ci duggee moo di euh, duggee sant yàlla sant yàlla mooy lii képp koo xamante ni lu baax moo la ñor di jullit da ciy bég ndax sëriñ Touba dafa doon jëmm joo xamante ni li ko taxoon a ñëw ci kaw suuf moo di xettali doomu aadama yi ci saayir ak baatin kon bu ñëwee. taxawaal taxawal euh, dem ci liggéeyam ba ñëw bi mu taxawal jumaa joo xamante ni dañ ko tuddee Masaalikul naan ñu tuddee ko téere boo xamante ni Serigne moo ko bind. kon téere boobu ni mu waa ci wàllu tawhiid ak tasu ak feq ci yëpp kon ñu tuddee ko jumaa loolu day euh, day day day wundu ni ni téere boobu mel ni la jumaa ji mel ci. ci wàllu ci ci njëriñ ci lépp kon loolu man mbégte mi ma ci amee moo di mm, moo di nañ xam ni jumaa ji jëmmi lislaam la fi taxawal ñu mu doon mbégum murit yi mu doon mbégum jullit yëpp ba tax na mbégte daal laa ci am. jërëjëf Mbacke yaakaar naa ku dégg ni ngay waxee baax a wax dana xam ne sa xol li ci nekk lépp sa làmmiñ sax mënu ko tudd ci mbégte salaamaaleykum sëñ Cheikh Sarr ñu ngi lay nuyu di la ziar baax a baax sëñ Cheikh Sall. bàyyi koo Tëngéej ñu ngi dajeeg ci yow fii nga xam ne jullit ñi ak talibé yi ñëpp lañ fi dajal yaakaar naa yëg-yëg bi benn la ana lan nga yëg. waaw li ñu yëg rek euh, mooy gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi di am mbégte mu kowe kowe ci bés bi nga xam ne tey bésub Sëñ Tuubaa la waaye bésub yonent bi sallallahu la waaye bésub lislaam la euh, su ko defee rek li ñuy jàngat ci bés bi rek mooy nangu gu suñ borom nangul Sëñ Tuubaa ab liggéeyam. ndax dafa jógoon ngir liggéeyal lislaam ngir tasaare lislaam gannaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wa ne hadis bu am solo ne badal islaamu xariban wa sa yaudu ne fa tuuba lil quraba ba lislaam egge foofu nag ci la sëñ jóg ngir islaam googu nga xam ne daa toll ci tumuranke mu fexe ba taxawal ko ba mu àgg fépp loolee tax nag eh, ndakaaru gii nga xam ne bi fi jaaree lu ne daj na ko ci liggéey boobu mu doon liggéeyal yonent bi salaa sallam ba wax ne su ko fàttalikoo guddi gi mu fanaan ci ndakaaru daa bugg day mel ni day bugg a jóg jël arme ngir jàkkaarloog ñi nga xam ne ñooy noonam ñi waaye soppeem ba xaritam ba di rasulilah salaa sallam moo ko wax ne ko bul fayu bul xeex bul xuloo loolee nag moo waral tey ñu nangul ko jox ko jumaa ji nga xam ne mooy jumaay Masalik niñ ko joxee woon jumaa yi nga xam ne mooy Touba ndax wax nañ ne ñu gàttal foofu eh, sëñ Mbay dafa am bés mu ñëw ci sëñ Touba yori ay ndëndam di tëgg jëm ci sëñ Touba sëñ Touba gën ne loolu lu mu ñu ne ko sëñ Mbay Saara mm-hmm. mu ne xëy na bu ñëwee wax lim ci jublu mm-hmm. ba sëñ Mbay Saar ñëwee mm-hmm. sëñ Touba ne ko sëñ Mbay Saar lii ngay def loo ci jublu mu ne ko mbàkk yow di da ngaa daan te ma xool xool xaw ma nu def ma ne naa jóg bàkkul la sëñ Touba ne ko moo ne danaa bàkku sax waaye suma bàkku daa jotagut waaye suma dëkk boobee ñuy wax Touba ak jumaa jooja nga xam ne moom lay bakkoo bakk googa nag mhm. jumaa ji ci la bokk waaye jumaay njaaram ja ci la bokk ak beneen jumaa joo xam ne war naa ñëwaat te accès gut ndax jumaa ja mu sampoon ca Gabon mi ñeenti bant yoo xam ne da ko sampoon tubaab ba buddi ko sànni ko ñett yaate feeñagum benn bi des na ñu ngi jéggal wasalaamaaleykum jërëjëf jazaakallahu xayran kon yaakaar naa sëñ Tuubaa ay jàkka yu rafet lay lay bakkoo jërëjëf sëñ Cheikh Sall ñoo ngi kontaan baax a baax leerale am na solo Tawfekh Production mu ngi lay sant bu baax ñeen ñuy topp ci YouTube bi incha allah jërëjëf jazaakallahu xayran fa tuubaa lil xurabaa